nuyu nañ leen mbokk internet yu Alpha TV mbokk yi tey ñu am mbégte euh, dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, Ibrahima Ndiaye di euh, ton di enseignant du juriste consultant également alors dinañ ñu waxtaanee lu soxal l'actualité euh, politique judiciaire tolluwaayu réew mi xam ngeen ni jamono ji li euh, l'affaire Ousmane Sonko euh, également polémique jëm ci li nga xamante ne moom moo mais également li Lam Lame, ni nii dañu ko rajee ci li nga ne moom liste électorale ak également Nenio ñëw ci biir waxtaan bi lu ñu def moom mooy bàyyi ko mu nuyoo laataa monsieur Ibrahima

Euh, ki ci gën a jiitu ci gën a fësal la ñuy wax moom mooy euh, le leader de Pastef Ousmane Sonko mi nga xamante ne jamono ji ma nga ca euh, prison bu bu bu Sébi Sébikotane alors yoon teg na ko daan ñu teg ci ay ndondob lu toll ci huit chefs d'inculpation ba sax mu daal di ci ay jamono yi sax yi nekk ni mu door li nga xamante ne moom mooy grève de la faim alors depuis bi dossier bi dooree ba ci jamono ji ñu toll nii ban jàngat nga ciy def est-ce que jàpp nga ni yon ci njëlbeen nga ba bu ñuy yegg si fii nii yoon am na ci est-ce que le droit a été dit voilà jërëjëf euh, par rapport à ce qui se passe maanaam li am bi ñuy euh, réagir dañuy njëkk a réagir en tant que mbokk en tant que talibé en tant que concitoyen en tant que jullit ci digganteem ak moromu jullitam donc euh, di ko métitlu parce que bu ñu sañoon kenn ci ñun du yeewoo feneen fu dul ci famille am ci biir njabootam donc di ci profité aussi di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne caabi daf leen féete gannaaw yàlla euh, taxawu leen ba ñu delluwaat ci seen njaboot ak seen sago te lépp lu leen fa yóbboon aussi yàlla bañ leen nattuwaat dañoo defaat ko. alors euh, affaire Ousmane Sonko bi nag moom problème mu droit la te droit xam nga dafa amul sentiment. ñun ci suñu bopp ñi koy jàngale dañu koy jàngale toog ba mu yàgg ñu taxaw wëndal suñu bopp euh, ndax ni ñu ko bindee ni ñu ko tëggee mais aussi dañuy jàpp ne rek dañu koy def pour yëgal nit ñi parce que le droit bu fekkente ne dañu koy appliquer à une société du ñu bàyyi ba nit ki def ñu tëgg règle bi c'est-à-dire que yow boo defee règle de droit boo xamante ne musta existe mënuñu ko tëgg ci gannaaw bi nga defee pour appliquer la ko appliquer la ko donc dañuy jàpp ne ñëpp bi kenn defagul dara ci la ñu wax ne lii ak lii ak lii aaye nañu ko kenn ci ñun nag koo xamante ne càggante mbaa fàtte mbaa teef mbaa nattu rek ci ni ñu koy wooyee moom moo la dal ba nga def li ñu la doon aaye su boobaa nag yoon day dal sa kaw loolu moom moo tax noonu la ñu koy jàngate euh, gannaaw bi ñu waxee diggante nit ak nit diggante jullit ak moromam dañuy ñëw nag ci diggante jurist bi nga xamante ne moom laa doon moom lañu ma formel ak ki nga xamante ne mu ngi may déglu te xëy na di jàng ci li may wax loolu moom moo tax ma ni wax ji léeg-léeg dina arranger ki koy déglu mu tàccu léeg aussi dina gêner dina déranger ki koy déglu donc du ànd ak ñun mbaa du ko neex mais du ñu tere wax toujours li nga xamante ne moom mooy li nekk ci biir téere yi te lépp lu ñu wax aussi dañuy bëgg nit ki bu ko weddee mu dem ci téere yi donc dina ko fa fekk looloo tax ñu ni ba lii amee ba léegi gannaaw bi mu nekkee politique parce que politique jongante la kii dafay yore yëf yow nga ne ko li nekk ci sa loxo laa bëgg jël moom mu ne man dama kaa bëgg a téye pour man donc yéen a ngi xëccoo xëccoo boobu nag la droit di ñëw organiser ne nit ki bu fekkente ne da ngaa bëgg a toog fekkee toog da ngay présenté wu ci ni nga ko war a defee du ñu jaar ci affaire parti politique ak ou bien par candidature indépendante et tout mais dañuy dem directement rek nit ki day ñëw présenter aux élections bu présenter aux élections Sénégal dañuy bàyyi candidats yi population bi voté bu fekkee am na kenn ci ñoom koo xamante ne am na li ñuy wooyee majorité absolue maanaam xaaj bi nga xamante ne ñoom ñooy voté boo ko jëlee nit ki am ko bu ci tegee benn nit rek day falu bu fekkente ne loolu amul kenn amul majorité absolue dañu leen di tëggalaat dañuy jël ñaar ñi nga xamante ne ñoo ëppale ñu boole leen muy deuxième tour deuxième tour bi nag su boobaa moo xam nu lim bi toll ki nga xamante ne moo ëppale kooku moom mooy falu nekk président de la république loolu la démocratie wax ñun noonu la ñuy tànnee suñu président de la république léegi nag aussi Sénégal loolu la ñu xamoon loolu la ñu xamoon opposition doon na fi am pouvoir am fii ñuy jàppante di dem di ñëw mais li ñu dund ak opposition bu bees bi nga xamante ne moom la Pastef andi dañu ko mosul dund looloo tax ñi doon ñi fekkee démb mu jaaxal leen ñi nga xamante ne ñu ngi dooru dugg ci politique aussi ñu jàpp ne ni leen Pastef wax ne nii la ñuy doxalee loolu mooy yoon wi donc day am problème donc il faudrait que ñu andi ñu nga xamante ne léegi nag mën nañu delloo si nit ñi ci li yoon wax mooy droit euh, man bu ma la menacé bu ma la nee dinaa la def nangam bu ma fanaanee sama kër ci yow la des yaa ngi dégg baax loolu c'est pour wax li nga xamante ne noonu la ko yoon tëggee bu ma la saagaa ci biir mbooloo mooy injure publique bu ma sama kër ci yow la des am ñuy wax ni saga kenn du ci tëj nit saaga dañ ciy tëj nit parce que dafa am ñaari façon saaga saaga bi nga xamante ne da nga ko ci bërëb bu ñu mun considérer comme bërëb privé ñu ne injure privée ak saga bi nga xamantene boko saga nit ki kep kuy romb ci mbedd mi mbaa kuy seetaan télé di deglu radio da ngay dégg Saga boobu noonu saga boobu boo ko nit injure privée injure injure public nga def ko fay yob nit kaso dañ koy daan amende dañ koy faylo aussi ndampay moy dommage intérêt donc dafa graw ñu setlu nak ni depuis avènement passif amé lolu dañ ko banaliser ci réew mi manam saga nit ki menacer ko dem nañ ba nga xamante ne suñu ñi nga xamante ne euh, ñooy suñuy wéeruwaay muy këru diine yu mag yi kër suñu maam sëriñ Touba kër sama sëriñ Seydi Hadj kër maam bay ñas kenn ku ci génn wax nga dégg ay nit yu génn ci press bi pas ci presse bi forcément mais ci réseau sociaux yi wax ko wax ju tegginewul joo xamante ne yow da nga koy rusa nettali loolu mu ngi door a am ci politique

te xëy na ñi ma suivre la ñi nga xamante suivre ñu mais ba lii di door a commencé presse bi ma doon intervenir tout le temps dama doon artu di artu di wax ne nit ki mën nga ànd ak moom bu dee da nga koo bëgg dee ko wax dëgg su fekkente ne aussi da nga ko ragal wax dëgg bu ko wax la ca gannaaw dëgg parce que boo ko la ca gannaaw dëgg rek dafay andi problème dafay andi problème te aussi nit bu demee ba am problème ba jàkkaarloo ak yoon muna la too ko lu bari dafay mel ni ko dugg ci teen loo daw daw daw pour wallu ko loo yuuxu yuuxu yuuxu boo yegsee ci pind bi ngay yem doo dugg ci biir teen bi fekk ko fa loolu malheureusement ma doon wax démb ak barke démb moom moo am tey jii nii ñëpp ñi nga xamante ne ñoo waroon Ousmane Sonko nekk ay politiciens yoo xamante ne mën nañ koo jur mun nañ nekk yaayam mun nañ nekk papaam parce que am nañ ay doom yu ko mag la ñu ko doon wax di ko mu def bemu ko def ko tey fa mu ni ni ni, amul kenn koo xamante ne balaa ngaa tëdd nelaw sax di nga ko xalaat bu weesoo yaayam jee toog ci kër ga tax il faut que nit ñi di nit tey nite nit mën na nekk nit te doo nite parce que bu fekkente ne lu waay yëkkati def loola ko nga def ko lu waay yëkkati wax loola ko nga wax ko te ni réew mi nga nekk dafa am yoon te li ma lay wax nii ñi ko jiitu ñi ma jiitu wax nañu ko jàngale nañu ko ku la wax ne la nga dara yoon lu dul da lay justice woo na du ma dem justice préparé bu sakau, sa kaw doomu aadama mënu ko dindi mooy problème mu contumace boobu noonu nga nga xamante ne dinañ ci waxtaan. dañ ci ñëwaat alors. Quand japp ni défier bu mu défier euh, euh, justice sur réew mi tey situation bi nga justice défier que ce soit la justice nationale que ce soit la justice internationale benn bu ci nekk benn moyen de defence rek nga am devant la justice mooy argument te argument bi nekk ci dëgg dëgg gu nga xamante ne nag day nekk dëggu justice mais pas dëgg bi nga xamante ne mooy dëggu ki la bëgg mbaa dëgg bi nga yaakaar ne sax nag yàlla loolu la wax parce que yàlla du dem tribunal tribunal texte yi ñoo fa ne li nga def bu dëppoo ak texte yi nga mën a défendre sa bopp boo demee tribunal naan leen yàlla nee na yonent bi nee na duñ la déglu loolu moom moo tax nit da ngay xam naka ngay xeexe ak naka ngay tege say tànk malheureusement défiance boobu ak ay nit wër la naan la yow la yow la yow la yow yaa moom li yow yaa moom lii nga dema dema dem ba def erreur gëm ko loolu moo andi lii ñu gis nii tey te malheureusement kenn yéenewu ko woon mm-hmm. alors entamé une grève de la faim euh, ba jamono ji le 13 jour je pense alors euh, tey jii euh, voilà lan la yoon mën may ki nga xamante le leader de Pasteur Ousmane Sonko pour faire ni toll na une situation bi Wow, waaw grève de la faim le moyen de défense moyen de pression moyen de défense mooy avocat bi ñëw seet li nga xamante ne la procédure wax seet li nga xamante le la loi wax mu teg ko ci table ji mais avocat mënul taxaw ci juge ne ko sama client fay def grève de la faim bay ko mu ñibbi loolu amul donc avocat nek euh, plutôt grève de la faim nekul moyen de défense c'est-à-dire que moyen de de de pression la nga ni kat xeyna buma démé bay waja dé dinañu japp ne sen conscience amna lenn lu ñoo loo xam ne nañu ko def pour li baña am dee gi am mais nit mën na def grève de la faim ci cellule am ba dee yon limu santane moy ñu dem jëliko sunko ko te bu koy sul fekk ko mu nekk prisonnier duñ ko jox mbokam administration pénitentiaire ñom ñoy jël ay moromu prisonnier am ànd defal ko li nga xamante mom le la mom moom la moom la l'islam santaane mba mom la église Santane. buñ ko défaré ba paré ñom ñoo koy donc tay bo nekké prisonnier nga nekk ci euh, sa cellule bañ a dund bañ a lekk di def grève de la faim ba dee fekk la fa dañu lay suul ci état wu prisonnier boobu nga ne beneen bi ci topp na comme ci droit la ñuy wax ci loolu lay yem ci loolu lay yem parce que bëgguma dugg ci waxtaanu ay diineek ay yu kenn xamul yooyu ñu ñi ko seq ñi ko moom dinañu ko waxtaane mais daal li ma la bëgg a waxal mooy que prisonnier bu ñu la dugalee ci sa cellule am nga droit def grève de la fin pour teg pression ñi la fa yóbbu mais bo tegee nit ñi pression te ñoom ñu ba nga dé ci aussi dañu japp né ab prisonnier bu dee duñu la du corps bi duñu ko sax jox sa famille pour mu denc la mais administration pénitentiaire moy jël ay prisonnier comme yow ñu défaral la ñu defal la ni ñuy défaré néw bu bok ci euh, religion bi nga bok après ñu yobul la suul la comme prisonnier bu dee

nërmeelu na bu yàgg maanaam daanu na bu yàgg alors euh, euh, lan la li nga xamante ne moom mooy l'article 312 bu code procédure pénale wax jëm ci wàllum contumace bi waaw euh, c'est bien nga cité ko hein, parce que article 312 bu code pénal bi dafa wax ni bu fekkente ne dañ la juger par contumace mais comme wolof la ñuy wax il faut nit ñi xam lan mooy contumace effectivement contumace mooy ñu war laa àtte nga xam ne yow dañu lay atte tey nga bañ a ñëw ci àtte bi lii la teree ñëw ci àtte bi aju ci sa coobare bopp ça veut dire que bu fekkoon te ngay jóge ci kër gi di ñëw oto mbëkk la mbaa ngay jóge ci kër gi di ñëw sax sa biir daw ba ñu constaté que sa biir dafay daw mën nañ laa bañ a àtte mun nañu juge bi mun na ko renvoyé waat mais bu fekkente ne sa coobare bopp moo la teree ñëw ci àtte bi yow doo tere justice def liggéeyam justice day continuer def liggéeyam léegi nag bu fekkente ne Euh, li ñu lay toppee dafa doon loo xamante ne procureur ànd na ci jaxasoo na ci ba topp la yow loolu dañuy woo ni dañuy wax ni c'est pénal léegi ci piir caractère pénal boobu mën na nekk déli comme mën na nekk crime ma fàttali ci wolof toujours comme jàngalekat laa rek ni déli mooy ñaawteef bu nga xamante ne yow boo ko defee yoon bu lay daan mënu romb fukki at pen bi lu mu dis dis dis fukki at la mën a yem crime mooy ñaaw ñaawteef boo xamante ne boo ko defee bu la yoon di daan bu tuutee ba tuuti fukki at lay commencé bu rëyee ba rëy sa giiru dund lay doon donc déli ak crime nii la ñu toppalante comme premier étage ak deuxième étage léegi bu fekkente ne nag pour kaaw Ousmane la moom bi ñu koy jugé ci viole lañ ko doon topp te viol crime la lolo tax bañu xeyé ci suba juge dossier dossier criminel la chambre criminelle Si on a bo xamé né war nañ la atte nak ci sa nga su comme matière criminelle la donc yow nañu la fi contumace lañ la a yow mi nga ne yow lañu lolu contumax x à la fin contumax légui dafa am lu organiser lo xamantene ne sénégalais yi xeyna ci cas bi lañu ko jot dundu mais ñun ñi jàngale dinañ koy gis mi fi mba feneen ak feneen légui nak li ci jaxal nit ñi moy que loi ni mu ko organiser euh, jotuñ ko fe am comme ay exemple yo xamantene ne na tax nit ñi xam ko li loi wax moy comme ki nga xamantene atté nañu ko bu dee dañ ko daan comme ni ñu daané Ousmane Sonko 2 ans de prison te ñëwul parce que après, euh, disqualifié le crime et un délit. C'est ce qui le délai qui a le délai de prescription 5 ans. 5 ans. Parce que le délai de prescription est délit 5 ans. Si vous faites un crime, il est 10 ans. Le délai de prescription, c'est ce qu'on dit. Fait Djehul, c'est Ousmane a le droit mu jógal boppam këram ñëw ci tribunal bi ne leen man atte ngeen ma tëj ma deux ans nangu naa deux ans yi ngeen ma tëj mooy maanaam ak acquiescé naa léegi ñu jël ko yóbbu ko mu dem tëddi deux ans à partir du jour bi nga xamante ne ci la ñëw jëbale boppam am na droit mu ni tëj bii ngeen ma tëj ci deux ans yi nanguwuma ko tey nanguwuma ko ëllëg waaye nag jébbalewuma sama bopp mooy dafay bind lettre mu ne leen dama leen di wax ne leen tëj bi ngeen ma tëj deux ans ànduma ci loolu mooy acte noon non acquiescement maanaam maa ngi leen di yëgal ne yëg naa ni tëj ngeen ma deux ans ferme waaye maa ngi leen di yëgal ne ànduma ci loolu bu fekkente ne am na donc acquiescement dañ koy teg de côté mu des ñaari possibilité beneen possibilité bi mooy lan mu jóge nag këram ñëw ne nanguwuma atte bi nga xamante ne attew ngeen ma ko ba tëj ma waaye ñëwal naa sama bopp léegi dama bëgg ñu attewaat atte bi su boobaa dañuy wax ni donc situation bi ñu ko tëje woon maanaam jugement bi ñu rendre woon jugement boobu dañ koy anéantir jugement boobu amatul léegi dañuy organiser waat procès bi Euh, juge d'instruction, bi renvoyé ko chambre euh, renvoyé ko donc tribunal euh, ci ki bi num teuti chambre criminelle bi chambre criminelle réunir ñu organiser wat donc procès bi bobu moy deuxième position deuxième situation bi troisième situation bi moy comme jugé nañ ko tej ko ñaari at diko déglu ndax dina ñëwal bopam pour jugement bi ñu anéantir ko té defu ko léegi nag réew mi jógal boppam ñu jox joxe mandat d'arrêt ñu dem arrêté ji ko bu ñu demee arrêté ji ko ci li nga xamante ne dañu ko jugé tëj ko ñaari at war ko jëli këram pour yóbbu ko nag mu dem tëdd ñaari at yooyu dañu leen di wax ne ki ngeen arrêté procès bi nga xamante ne moom ngeen ko tëje woon deux ans procès boobu dañu koy annuler mais moom day des prison

ba ben ñu foqate jàppante foqati euh, ñu tudde ko vol à l'arraché et tout cela ci kaw lolo nit ñi ñëw jël bi ñu arrestation procureur léegi nag dafa andi mom théorie bopam. Euh, jàngalekat kati à travers l'honorable je l'appelle l'honorable hein, parce qu'ils sont plus honorables que n'importe qui euh, Ndiak Fall le professeur nekk suñu doyen ñun ñëpp génn moom ci boppam mu wax ne loi bi dafa wax ni ki nga situation contumax la nekk or bu ko arrêté jugement ba nga xamante ne ca ko jugeoon par contumance ba ko ci la professeur d'université euh, procureur bi bi muy def communication mu arrestation bi ñu Ousmane jotewul dara exécution condamnation bi nga xamantene mom lañu ko condamné donc mu nek ñaari position yu jamarlo léegi nak dafa am tuuti lu may préciser muy que pratique judiciaire dafa am ak théorie du droit ñun théorie du droit la ñuy def théoricien du droit moy ki nga xamantene ne da koy jàngale génné ci xalaatam ñukoy woyé doctrine après mom limu japp né yoon wi tëgge nañu ko te waron nañ ko mëna défarat defaraat ba mu loolu la comme xalat mais le praticien du droit nga xamante mom moy juge bi mom moy procureur bi ñom dañu am une pratique judiciaire bu nga xamante ci loolu lañuy qualifier ñom seeni action alors tay ji ma jox la ben exemple juge bu ko léré ni loi bi mu wara appliquer ki ci kanamam du loi bi gën mënu ko dindi mënu ko changer loolu mooy indi juge dina condamné nit yóbbu ko kaso ñibbi këram du nelaw parce que da koy leer ni moom ci yàqinam cest à que moom ci li mu yaakaar li nga xamante ne moom la yaramam sentir jàpp na ne kii nii warta def li tax ñu koy tëj mais nag élément yi nga xamante ne moo tegu ci table ji moom moo koy te décision bi mu war a jël te décision boobu mooy tëj waa ji looloo tax la pratique judiciaire nekkul lu nga xamante ne dañu koy superposer ak moral lii la ñu war a def lii la ñu war a def lii la ñu war a def non non non loolu amul ci pratique judiciaire lan la loi wax moom ngay jël méngale ko ak li nit ki def wax li loi santaane nga appliquer ko mu dem kaso donc on est dans une opposition mooy euh, jàmmaarloo ñi nga xamante ne dañuy jàngale droit ni ñu ko gisee ak ñi nga xamante dañuy jëfé droit ni ñu ko gissé bu dee tribunal dafa japp né pour que décision de justice bi nga xamantene mo condamné Ousmane Sonko deux ans mu anéantiru il faut que ñu mettre en œuvre il faut ñu mettre en œuvre arrestation bi décision de justice bobu santané su boba situation bi nga xamantene mo wara anéantir décision bi duñu ko mëna retenir parce que wa tribunal dañu japp ne ñom dañu japp Ousmane Sonko ci yenen ñaawteef yu bokkewul ak ñaawteef bu taxone ñu juger ko ba ba ba ba tëj ko ñi nga xamantene dañu japp ne arrêté égal arrêté manam heure arrêté nit ki rek situation contumace bi dañu ko wara changer donc ñu anéantir décision bi ñoñu xeyna ci jamono mën nañu la loi bi nga interpréter arrêté le ko arrêté ak dans le cadre de l'exécution de la décision de justice biko condamné ou bien dans un autre cadre day anéantir décision bi loolu mom moo tax ci jamono bi ñu tollu ni le tribunal considéré té mu tradition dans la pratique judiciaire loolu mo gën a wër ñun nak nous nañu xalaate nenen. man personnellement bima ma ci discuter en privé ce que nous avons li c'est yanu mana ci man le détachement des actes Moy que arrestation bi nga xamantene arrêté nañ ko dafa une conséquence de l'exécution de la décision de justice bi condamné à deux ans man ce mo nekkoon son position Benen professeur génn ne arrêté arrêté la donc buñu ko arrêté rek dafa wara anéantir décision bi lolo tax mané ñun ci suñu wàllu bop théoriciens yi kenn ku nekk da nga japp ci li nga japp tok di déglu mais nak lepp lu ñu munti xalat aussi amul jéxital parce que le tribunal japp kessé lolu moom moy am. alors mu mu mu nekk ay ay ay points yo xamante également c'est c'était important ñu ñu souligner ko parce que polémique bi également bëri na te euh, débat technique bi lu jëm ci wàllu yoon population ñu ci bëri duñu duñu duñu mëna comprendre seulement ci télévision yi des fois débat bi dafay xóot ba euh, euh, euh, manam gis-gis biñ ci wara am manam léral gi ñu ci mëna am du ci du ci du ci am donc da ci bax des fois aussi population bi population bi ñu ñu ci ñu léral leen également lu jëm ci mo point yoyu alors dañuy xuus. Euh, euh, toujours ci lu soxal walum ka Ousmane Sonko euh, gis ni ci li nga lañ ko ci voilà ci d'inculpation ñu ci ci je crois c'est le jour même ñu li nga son parti di le PASTEF alors duñ dañu duñu ne sax du gulet ndax yàgg nañu Sénégal histoire politique Sénégal quand même yàgg nañu fi tas li nga xamante ne moom ay parti euh, politique alors bii euh, euh, lan la yoon wax ci ñuy tase parti lan la ci wax parti d'abord pour nga xam ni ñu tasser, il faut nga xam naka lañ koy constituer parce que autorité bi constitué moom moo am autorisation tas parti politique association là association de droit privé mu ngi mel ASC bi koñ bi nekk koñ ba bi ngeen koy constituer kayit yi ngeen dajaleeg yooyu noonu pour ministère de l'Intérieur. intérieur bu ngeen ci sous préfet mu jàll ci préfet jàll ci gouverneur jàll BE ci ministère de l'Intérieur. intérieur ñu génnee jox leen seen récépissé reconnaître nañ leen léegi comme association par l'État du Sénégal parti politique noonu la ñu koy defee aussi donc ministère de l'Intérieur. intérieur moi reconnaître parti politique léegi pourquoi ministre de l'intérieur tassoul parti bi décret ko aussi ku droit administratif de la sonal parce que ku nek ni ministre de l'intérieur est placé sous l'autorité hiérarchique donc du premier ministre premier ministre est sous l'autorité hiérarchique du président de la république président de la république mi nga xamantene mo nek ci sommet bi ci autorité bi mom bu décider dara day appliquer wu ci ñepp ba ci agent yi gëna touti tuuti ba ci population bi gëna touti. tuuti looloo tax bu ko décret tassé sur le plan administratif il y a aucun problème qui ko ki am pouvoir pour def ko mom moko def président de la république nak du du du mom moy lay wax damal nga déposer ce qui après sa parti politique non non non yow da ngay bind rek nga jàllale ko ci euh, ministère de l'Intérieur, intérieur mu préfet sous préfet yeeg affaire yooyu xam pour sa association taxaw mais TASBI, bi ni ko tassé, amul ben vice amul ben problème c'est le pouvoir hiérarchique donc du président de la république momo exercé où, donc ci li nga ministre de l'Intérieur mom moko ko yilif donc mu nek tasbi mais tasbi da fay am toujours lu koy wund parce que am ay parti yoo ñu ngi fi mënuloo tey xëy suba tey rek da parti Cheikh Bamba djey parce que li nga xamantene mom la sàmmoo ak liko ko wax amul dara lu ci woro c'est-à-dire que yoon daf ko ni parti politique nga yow da nga wara concourir au suffrage pour mën yegg ci présidence de la république am nga droit participer ci élection yépp waye da nga am obligation respecter les règles démocratiques te règle démocratie mu ngi basé wu ci droit lépp loo xamante ne yoon da koy aaye yow danga koy euh, bonal lépp loo xamante ne yoon may na la ko ci ngay jaar pour yegg fi nga bëgg a jëm loolu mooy obligation bi ñu leen jox dañoo war di liggéey pour loo xamante ne aussi day rafetal jikko yi la morale sociale éducation bi ñuy def pour seen ay militants di leen jàngal di leen wax yépp daf leen war a xirtal ci bëgg seen réew ba nga xamante ne bu ñu xëyee suba ba ngoon lépp lu ñuy teg comme tànk loo xamantene dafa war a am jeexital développement seen réew luy màggal seen réew luy rafetal seen réew loolu yëpp ay mission yo mission yo loo xamantene texte bi këyit bi tënk ñoom seen création parti ci la léegi nag dañ lay seetaan mu ngi mel ne arbitre bu nekk ci terrain léeg-léeg di nga ñëw nga bëmax sa adversaire arbitre bi def ni loxom léeg-léeg ngay football bi ak sa loxo mu siflé mais def lay bàyyi ci terrain bi mais boo tëbee dóor sa morom kurpeñ ku rouge direct la boo tëbee def tacle deux pieds ouvert carrément mu dóor la réglement boobu nekk ci terrain football moom moo nekk ci administration parti politique yi mu am yoo xamante ne boo ci duggee maanaam di inciter nit ñi par exemple à l'insurrection l'insurrection moom mooy fipp bu nga xamante ne nit ki dafay dafay jàmmaarloo ak way takk dar yi xam nga loolu baaxul parce que yow bu fekkente ne da nga jàkkaarloo ak way takki der ñoom ñu yore fetal yow nga yore xeer euh, seytaane mun na dem bal kenn daanu ab defkat lu bon mun naa gis ne ñaar ñee ñu ngi ci profito dugg ci def lima def mooy ñi nga xamante ne heure bu ñu génnee nit ñi ñoom songko ñu wax sonko sonko sonko dañuy profito set ban boutique mooy jaay portable bëggoon na am iPhone boutique bee day jaay portable man ci côté boobu lay jaar bu butik tojee boutique bi ma njëkkante ut ay téléphone dem nañ ci gis ay jigéen ñoo xamante ne ci biir manifestation yi dañ leen a violé fekk leen fi ñu nekk ci seen boutique sàcc seen xaalis sàcc seen marchandise ba noppi violé leen euh, dafa am ci ñun séeréer nu ñu koy wooyee dañuy wax ni euh, nit dara munu koo yeew ba mu moom moo euh, dafa bari ño xamante ne bokk na ci arab yi buñu xesse be wax la dara bu bo même buñu ñu xamal ne lolu mom moy am parce que dañu jël sen ay disposition légui nak wax joju bu fekkente ne ko contrôlé wul moy dem ba yóbbu la yow ci sa bop yaay teunk sa bop moy par exemple les menaces de mort contre un président de la république jour bi Ousmane défé lolu. ci meetingu kibi bu boobu je crois Grand Yoff la woon xaw ma Kër Massar xaw ma fan. seen meeting bu rëy boobu mooy bi muy wax ne dañuy dem fekk palais président de la république jëli ko bu ñu ko jëlee dañu koy def ni ñu defoon Samuel Doe moom âge am permettre na ko mu xam lan la gars yi defoon Samuel do yow sa âge mun na la ko bañ a permettre mais boo duggee ci internet bi di nga gis nan lañ defoon Samuel Doe président la bu ñu génnee ci président am andi ko ci mbedd mi yeew loxo ay noonam wër ko génne paaka Prince Johnson jiite ñaaw teef boobu mu koy saraxu di ko baalu ak di juuxu mu jàpp ci nopp bi dagg nopp bi toroxal ko ba mu nekk ci biir deret ñu jekkli ko ak balu fetal jël benn camion boo xamante ne camion plateau la mu ñu summi ko ba mu des slip bi ñu ko reyee ñu teg ko ci kaw kamiyon plateau bi di ko wërale ci biir dëkk bi ñaaw teef munul rëy loo munul gën a rëyee noonu boo nekkee ci réew nga menacé président de la république lola ba noppi nelewi sa kër fanaani sa kër ça veut dire que soit ñaari yëf moo am soit réew ma ko ko jiital ragal la parce que man bu may jiite réew boo ma menacé loolu doo fanaani sa kër. bëri sax dañoo jàppoon sax ni ni ni ni lan moo yon demul jeli ki nga xamante ne. moom laa lay wax nii moom la moom laa lay wax. c'est-à-dire que man mii bu may jiite réew nga wax ma loolu doo fanaan sa kër. ma def na ko mu dem ñu dolliwaat ci yeneen ak yeneen dañuy def mortal combat dañuy jógee Ziguinchor marche andi ay nit ñiy jaar ci bateau bi ñiy jaar fële pour ñu dem def mort fi terminé loolu coup d'état la c'est-à-dire loo ciy génne dafa doon loo xamante ne war na laa mën a war na laa mën a wallu mais nit dina wax a wax a wax ba tënk boppam te yooyu noonu fi am yépp fépp foo ko def

ñañ ko fay def extrême droite tas nañu leen boo demee feneen ak feneen noonu lay demee lolo tax ma ni instant yow mi ànd ak nit ki yow ko dalal li ngay wax du ni man musuma gis ku ànd ak Ousmane Sonko weddi ko ci lu wax mbaa weddi ko ci def mbaa nga won ko ni ko li nga doxale du noonu ñooñu kon bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo sànk Ousmane Sonko parce que man bu may ak yow te wax wax sama diggante ak yow du mais am na loo xamante ne dootuma ko waxtaanee ak yow keneen ku ma ñemee wax dëgg laa koy waxtaanee. kon daal nga jàpp ne entourage bi liggéeyam liggéey bi ñu ci war a def. bon du ma attaqué entourage bi parce que Ousmane Magum jëmm la jàng école jàng droit su fekkoonte ne mathématicien la mbaam mu nekk keneen a keneen mun naa ko mais droit la def lépp lu mu def xam na ne yoon da koy aaye. lépp lu mu def lu dëppoowul ak yoon moom moo la gën a xam ne yoon da koy aaye looloo tax défiance boobu noonu mu doon def dafa am fu mu ko sukkandiku fi mu ko sukkandiku woon mooy dafa jàppoon ne Sénégal yi dañu ànd ak moom àdduna dafa ànd ak moom et lu ko neex mu def mu ngi mel ni xale bu laqatu ci gannaaw ay magam taxaw di la saaga di la kii parce que day jàpp ne yow boo ñëwee mu ngi ak ay magam fekk foofa mu toogoon ci xelam jàpp ne ñépp moom la ñu àndal ndekete ay wor la woon doon dëgg

mais jàppoon na ni toog na ci doole yoo xamantene population jeune yu am doole yu am entraînement yo xamantene buñu taxawé ñu kenn du ci mën dara mais tey ji loo ci gis. effectivement te est-ce que sax amu ci ci ci ci mbetteel parce que comme ni nga ko waxee jàppoon nañu ni mom jàppoon ni sax ni bu ko yon tégué loxo comme ni mu ko waxee su ma ci élection yi réew mi dana nek ci kawo dina dina dina yëngu jàpp ni bu loolu amé euh, euh, jeunes yi nañu yëngu nañu voilà réagir ci anam go xamantene ne réew mi dina am dina am du am stabilité alors euh, dañuy dañuy dess ba légui ci li nga xamantene mom moy ci éligibilité Ousmane Sonko fan yi ñu ngi lam lamé dañ koy radier ci liste électorale bi ou pas alors justement lolu ban bang lecture nga ci nga ci def du lo xamante ne c'est c'est c'est confirmé mais mu nek ay rumeur yo xamante mi ngi daw ni Ousmane Sonko jamono yu ñu ci yoonu ràjjee ko ci li nga xamante mom moy ci liste électorale bi. waaw lolu bu amé logique lay né si wàllu yoon nak la wax waxuma walu politique waxuma walu sentiment comme wax naa leen dégagé naa loolu yëpp nee la yoon laa dafay nekk logique ci walu yoon. pourquoi parce que dañu wax ci code électoral bi né képp ku nga xamante da nga nek en état de contu masse c'est-à-dire que dañu la atte atte boo xamante ne waroon ngaa ñëw ñëwuloo yow dootoo bokk ci liste électorale yi boo bokkul ci list électorale yi doo mun a voter doo mun a nekk candidat moom bi ñu ko attee ci situation contumace lañu ko attee léegi ñi nga xamante ne ñooy andi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi ñooy ñiy wax nit ñi ne leen comme moom arrêté nañu ko contumace boobu amatul non non non non non non, non, c'est-à-dire que jour bi lay non, ñow nga ou bien non, non, non, lire par rapport au code électoral bi bu non, ne dañu commencer di la non, ba mu non, nga dugg Nyonga ci biir salle bi dañuy recommencer waat débat non, un contumax jour bobu ñu constater que max nga jour bobu lañu wax ni code électoral bi dalay intéressé légui nak ñu ngi xaar jeexitalu doxalin bi moy procédure bi te su boba dañu né ci article 312 code de procédure pénale bi né buñu atté be paré pare def publication ou décision bi Manam japp nañ né tay képp fu fépp foo xamante ne war nañ ko fa publier publier def publier publication bi def nañ ko fa su boobaa li nga xamante ne moom loi bi prévoir ci déchéance manam xañ yiñ lay xagn jour bobu lay commencer kon question bi lan la wara don moy est-ce que def nañ publication wu décision de justice bi ou bien ñu publication décision de justice bi compte contumax la ou bien du contumax kenn du ko parce que xam nañ ne jouru euh, procès bi ba bi muy jeex mom ñewul donc contumax la léegi lan lañuy xaar procédure boobu nga xamante ne article 312 du code de procédure pénale mom moko def lañuy xaar buñu ca yexé nak légui su boba on dit que effectivement déchéance bi fay dugg manam dañu koy baré dootul bok ci liste électorale en qualité donc de d'électeur ou bien de candidat alors il faudrait que nit ñi xam ne ko défé logique le buñu jéxal buñu ko defagul aussi amna lu des lo xamante ne motax moo ko mais logique la ci ñu yegg ci lolu alors mo mo mo mo nekk am solo kon jamono ji dal mën ñu japp ni ni ki nga xamantene ne moy le leader de Pastef Ousmane Sonko euh, joganteem ci élection présidentielle 2024 dal nekul lo xamantene jamono ji lu lu lu lu leer la. bon man nak bu fekkente dañuy waxtaan waxtaanu nit ak nit rek man mënuma ko cee bolé xalaatuma mu bok ci parce que xamna naa yoon nu muy doxee xalaatuma sax ne moom dina mën a bokk en 2024 avec tout ce qui s'est passé. donc bokkul ak waa camp mi nga xamante ne ñoom jàpp nañu ne amul plan B seen plan A moom mooy le leader de Pastef euh, ki nga xamante ne moom mooy Ousmane euh, Sonko. alors ñu waaw man loolu moom comme ni ma dégagé ci commencement bi rek euh, du ma wax politique du ma wax religion kuy def politique da ngay def politique man droit laay droit bi nga yem effectivement <laughs> d'accord dañuy dugg alors ci ci ci li nga xamante ne moom mooy présidentielle 2024 biñu biñu bi ñu bi hein, pour parler un peu de de de la politique njiitu réew mi gis nañu décision bi mu jël ni du bokk ci li nga xamantene mom moom ci jogonté bi mu nekk lu ñëk ci taarixu politique wu Sénégal. alors euh, jamono ji euh, ñu bari japp ni ni euh, présidentielle 2024 biñu jëm bokku na ci jogonté yu gëna jaxaso sax ci boy xol ci ci ci politique bi parce que euh, boy xol Benno ñom ñu ngi wër candidat bi nga xamantene mom mo leen wala représenter euh, ci ci jour électoral yi ñu dégmal euh, ka Khalifa Sall Karim Wade ba légui ñu ngi ci leer leeragul kaw Sonko mom kenn waxatu alors justement bo doon defal bo doon def ben lecture ci li nga xamantene mom moy mooy présidentielle bi ñu dégmal lan nga ñuy lan ban ban leeral nga ci nga ci indi exactement. waaw su def fay nek analyse analyse donc dafa subjective Moi, man li ma jàppal sama bopp nekkul lu bind ci livre droit mais man li ma xalaatal sama bopp la euh, du ñooñu rek du tur yooyu nga tudd rek ñom ñoy dem élection présidentielle. am na yeneen tur mhm. yoo xamante ne xamuloo ndax suñu waji day nek candidat présidence xamoo ndax kenen day nek candidat présidence et tout cela mais ci ñi nga tudd noonu kenn ku ci nek da nga nek ci sa yoon je crois que li xel nangu ci jamono ji ñu tollu ni ba tax assemblée nationale réhabilité Karim Wade ak Khalifa Sall moy pour que ñu bok ci élection yi. li nga xamantene non la aussi malheureusement Ousmane doxale ko be yoon top ko ci day woné né Ousmane du bok ci élection yi bu fekkente une affaire u Benno bok Yaakaar la nak moi je trouve que théâtre la ñu nekk di def bon honnêtement hein, parce que je crois que le président Sall ba muy def son dernier remaniement ministériel teniroon na compte ci lii je vais dire aussi fii que Macky Sall amoon na droit bokk ci élection yi di ñëw. fu nekk expliqué naa ko fa. te wéer ko ci xam-xam. maanaam yoonu li loi wax li droit wax amoon na sañ-sañu bokk ci élection yi looloo tax moom bi muy jël décision bi jëlu parce que warula bokk daf koo jël ci sama gis-gisu bopp. parce que bu bokkoon ci élection yi nii euh, gagné ko ci trois mandats la mën a yem ci Sénégal te le fet que mu bañ cee bokk bañ a bokk 2024 mun na may Macky Sall mu am quatre mandats Sénégal parce que Macky Sall 1961 la judd bu ñu demee élection 2024 Macky Sall dafay am 63 ans mu bañ a bokk. qui fallu fallu def 5 ans Macky a fait 68 ans Macky Sall bu dellu siwaatee ci élection à 68 ans bu ko gagné 5 ans plus tard 73 ans il a day am possibilité présenter l'élection. élection fekk ko mu def ben mandat ak mandat ba muy entamé à 73 ans donc day am feulé ci kaw deux mandats plus deux mandats yi passé mu nek quatre mandats looloo tax calcul yi gars yi di calcul ak man limay xol sama analyse du benn mom japp na ne bu démon ci élection yi cinq ans lay amat plus deux mandats yi mu defoon mu nek trois mandats dotul mun a ñëwaat parce que su boba su boba donc day def les deux mandats consécutifs yi nga xamante ne moom cinq ans yi mais bu fekkente ne dafa teubal ben. newuma ki falu daf ko nan comme ni Medvedev di def ak Poutine ne ko duma présenter présenté présenter pour gagner waxuma lolou mais mën naa nekk aussi loolu mën naa ne beneen bi ci topp mu ngi dem dem boo xamante ne ñëpp jàpp nañu ne def na bilan boo xamante ne amu fi c'est-à-dire que am Sénégal musuñ ko sax gis Afrique bilan social boobu mu bàyyi dina tax ki koy remplacer yan bi muy yenu kenn xamul nu mu toll. te du ko mën a réaliser du mën a réaliser le Macky Sall réaliser ci juróomi at. Mm-hmm. donc bu ñu demee ba ca ñeenteelu at ba. population bi ci seen bopp ñooy dem fa Macky Sall nekk ne ko da ngay nekk candidat président bi koy remplacer mun na def benn mandat population bi namm Macky Sall jëli donc mu ñëw en 2029 nek candidat. cela à dire donc ci loolu mooy analyse par rapport ak ay dinaa bokk ak du ma bokk calcul la. beneen bi ci topp mooy ci jamono bii ñu toll nii Macky Sall le président Macky Sall je m'excuse hein, bi muy def son dernier remaniement ministériel bi muy jël Amadou Ba xamone na né le prochain président de la République lay préparer ça je l'ai dit ici. moy bi muy wat poste de premier ministre. bi muy wat poste premier ministre. bobu mu ngi préparer le prochain président de la République bobu xamna né ne du def mom mandat bi mu doon wax ni ni nii non mais kan moko ko a def ko xamante bu ñëwé mom ak mom ño bokone liguey bi amna compétence bi amna charisme bi parce que chance su Amadou Ba loo ci munti dégg mooy que bu ñëpp euh, je m'excuse hein, vraiment bari na ci ay xarit ñi sax samay goro lañu mais candidat yoy ñuy wax Benno Bokk yakar yëpp buñ leen jëlé ñu teg leen ni ni ni nii nii nit ku leen xamul bo leen né kan moy président de la république ci ñi def naan la Amadou parce que charisme dafa am ci nit yar bi mu ngi ci mom xam-xam bi mu ngi ci mom jub ak jubal bi mu ngi ci nak fu nit wara jaar pour diriger coordonner action au gouvernement tok ak président de la république fu kenn dul nek il est le seul mom rek mom moko fa def lolo tax ma ne Macky président Macky Sall bu mu andi nit ñi problème bu mu andi nit ñi jiixi c'est-à-dire que li nga li logique moy la commencé mu que ak Amadou Bala, depuis ci remaniement ministériel bi poste premier ministre na wax ni comme Amadou buntu bureau président de la république bi ko mu dugg ci de la république continuer def nañu doon def rien ne l'empêche Amadou Ba bu ministre président choisir daf ko ministre bu ko nexé mën na ko choisir daf ko conseil bu ko nexé daf ko ministre d'État bu ko nexé aussi mën na diriger liste élection législative di ñëw dem nek président assemblée nationale parce que Macky Sall ay mormam quand même ñoy football fi tous les dimanches hein. ak ñu ko mag ñom ñoy fi football donc du mag lolu la motax mani il ne faudrait pas que ñuy sonal nit ñi diw nee damay bok diw nee damay bok ñi wax ne dañuy bok yépp xam nañu suñu tëddee xam nañ ne Amadou Ba mom moy sen sen candidat logique naturel nañ ko def candidat liggéey bi continue kon dal japp nga ne le choix de Benno c'est c'est c'est Amadou Ba. non mon choix pour Benno

Euh, euh, euh, dafa ñëw défier na autorité Sénégal ñi nga xam ne ñoo nekk fii jol yolu wàllum yoon ah voilà def na li muy def dem na est-ce que loolu est-ce que jàppoon ni d'une part du fragiliser li nga xamante ne moom mooy suñuy suñuy suñuy suñu suñu yoon fii même sentiment bi nga wax ni man moo ma habité woon le dimanche bi passé deux 2STV m'ont ma invité may euh, remercier Babacar ci professionnalisme bi ak borom xam-xam yi ma euh, plateau bi mu nekk soxna Marima Touré Thiam donc euh, veuve professeur Ibader Tcham et ak honorable Hélène Tine adjoint au maire au niveau de Thiès ku a xam ko ci parcours politique Beaucoup bokk aussi ak yeneen i naataango yoo vraiment c'était très bien fait alors dama amoon sentiment blessure boo xamante ne amur amour propre la on, blessé woon ci doxaliinu Juan Branco mais après procureur euh, doxalin bi mu doxal giifal ma parce que def na li kilifa def que nit dugg ci sa réew euh, défier la mu ngi yow nga am sa kër nit fekk si la sa biir kër sa kanamu jabar ak say doom ak say njaboot défier la sa autorité toroxal la ci biir kër gi ba noppi jaaraat ci buntu kër gi dem bu la kon heure bii nii li ma métti woon mu ngi may métti ba léegi mais essayé na ko fekk na fi kilifa wan nañ ko ni ko réew mi dafa am souveraineté topp nañu ko def nañ ko liñ ko war a def ba delloo siwaat ko yóbbu ko kaso inculpé ko door koy defal maintenant euh, naka la tooti ex ñu ñu ñu exclure ko expulsion donc de de de du pays loolu ku mu toroxalul dootu la toroxal ku yaakaar ne Juan Branco dafa jóge Sénégal ak ndam day nax sa day nax da koy nax day nax boppam parce que moom li mu bëggoon bu fekkonte ne am na heure bi France lay ne ne leen dem naa Sénégal wan leen ne faalewu ma leen ragalu ma leen génnaat naa Sénégal maa ngi nii kenn jàpp moo kenn defu ma la te fii mu toll nii moom il est sous contrôle judiciaire donc jàpp nañu ko jaarale ko fi ñu ko war a jaarale rafetlu bi mooy que mënoon na ñoo topp suñu xol ba mbaa ni ñu ko def ñu gaañ ko parce que loolu la doon wut loolu yëpp professionnalisme FDS yi force de défense et de sécurité yi mm, permettre nañu arrêté ko teg ko ci yoon ba mu génnaat waaye il faut ñu xam ni réew mi dafa am souveraineté souveraineté dañ koy exercer ci kaw suuf sa territoire réew mi sénégalais bi fi ne ak gan gi jóge bitim réew ñëw ci réew mi ñoo bokk sangoo loi bi nga xamante ne moom moo nekk ci réew mi booy dugg ci réew dafa am buntu booy génn ci réew dafa am bunt moom nag li ko yëkkati woon nekkul woon defendre Ousmane Sonko li ko yëkkati woon moom mooy anarchie anarchie boobu mu doon jéem yàlla def na ba antuwul donc comme yoon defna limu wara def ba mu wat par expulsion keureum gaañuwul fenn nit ñi constaté nañ ko kenn gañu ko kenn mbugalu ko véritablement dañ ci féliciter tout simplement les autorités judiciaires et puis de xamal Kenen, ku nekkul Juan Branco que aussi bo ñëwee Sénégal jéem ñu euh, jéem naxaxal suñu souveraineté dinañ la tek ci liñ la wara tek mu yoon wi parce que am nañu ay autorités yo xamante ne am nañu fit wi ko def voilà un mot pour terminer sur soxal wàllu situation bi am fële ci Niger ah. gis nañu ni jamono ji euh, coup d'état ba fa am CEDEAO euh, jamono ji ñuy déglu ci euh, offensive militaire bi nga xamante mom le wajal def fofé nga xamante mom moy ci Niger est-ce que japp nga ni solution la pour régler li nga xamante mom mo am foofu ci ci Niger. voilà donc en matière de relations internationales. Euh, dafa a sanctions, sanction ay principe sanctions. mais sanctions sanctions, dañ ko échelonné dañ ko échelonné maanaam escalier la boo xamante ne commencer rappel des euh, des ambassadeurs pour que réew mi nga accrédité sa ambassadeur que yow kontaanuloo mu mesurer situation bi corriger la situation. réciprocité qui def la nga def ko kii da ngeen a mu war def deful nga ne kon man du ma def li ma waroon a def mais njoboxtal la mooy sanction bi gën a rëy moom mooy guerre guerre moom mooy jël sa armée dem tirer bu ñu amoon lu ñu gënal mooy du yegg ci guerre boobu mais day fekk militaires yi nga xamante dañoo def coup d'état delloo président de la république bi fal ci place am li ñu mënul nangu mooy que mu am ay réew yu nga xamante ne waat nañu ne munuñoo jël nguur sans coup d'état soo jëlee kaawu euh, Burkina Faso nga jël kaawu Mali nga jël kaawu Guinée ba ci Niger bi dugg Niger góorgóorlu woon na di organiser ay élection di am président affaire bi jaar yoon mais ay gaa yoo xamante ni dañoo xëy suba teel rek ne war naa mën a nekk président en boy kii ne en boy ñu jël seeni fetel parce que militaire réew mu munti doon ñoom la ñu dénk balu fetel yi mooy poudrière bi ñoom la ñu dénk aussi ngànnaay yi te boo jëlee ngànnaay fekk ku nit ci bureau mu téye bikam nga won ko kalachnikov ne ko génnal day génn ñooñu la ñu war a wax ni nguur kenn du ko jëlee noonu pour nga nekk président de la république da nga war a dem nga defi candidature dem battre campagne dérouler programme convaincre nit ñi ñu fal la nga nekk président de la république man nag sama position ci wàllu ñii di def coup d'état mooy que CDAO dafa touti. Union africaine mo wara jël chapeau bobo. bu ko jëlee bé paré mu fexé nu mu ko yobbo Nations Unies ba nga xamante ne bu ñu nee tel réew amna ay militaires yu fa def coup d'état pays yi Afrique réew yi nekk Afrique même bu fekkente ne fanweeri réew kessé ñoy dax waaw mba ñaar fukki réew ñoñu lañuy jël euh dajalé sen ay militaires. ñu dem ne waa ji hey dellool président bi place am mbaa ñu dal sa kaw force de dissuasion boobu bu yegsee militaires yi def coup d'état bi dañuy constituer seen bopp prisonnier mbaa ñu négocier naka la ñuy delloo ci seeni caserne te kenn du leen tëj looloo tax man la CEDEAO man d'accord naa ci option bi ñu jël parce que bu fekkente ne ku jóge fële gàddu sa fetal ñëw fekk président bu ñu fal population bu taxaw fal président

ne dama def coup tey waruloo fanaan le même jour dañu laa war a contraindre nga delloo nguur gi ki nga xamante ne moom la ñu fal yow nga delluwaat ci sa caserne parce que militaire loolu la ñu ko sant. alors mu mu nekk lu lu am solo c'est vrai que ni ci sous région bi dañ ci nemmeeku lu lu bëri ah coup d'état yi nga xamante nañ ne dañ koy amal yaa ngi koy lim sànq lu jiitu Niger Burkina Faso euh, Guinée euh, voilà. donc nekk na loo xamante ne euh, lu ñu lu ñu lu ñu war a lijjanti la alors yegg nañu ci euh, li nga xamante ne moom mooy jeexantalu waxtaan bi dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokk internet yu bi TV laataa ñu yëkkati jotaay bi. waaw maa ngi leen di gërëm ah, di leen ñaanal aussi parce que lii bokk na ci liy développé réew bokk na ci liy saxal démocratie ngeen am seen euh, chaine de télé di jox nit ñi ñuy wax seeni xalaat. mënuñoo wax président de la république defal mu def munuñoo wax nit kiy def lu bon bàyyil mu bàyyi mais moom bu toogee di seetaan liggéey bi ngeen di liggéey mun na dem ba mu delloo siwaat ko léegi aussi euh, liñ fi jot a waxtaanee du jaay xam-xam nekkul ne ñun ñoo gën a xam mais dafa di yàlla def ñoo boole ci ñi nga xamante ne bu réew mi jaxasoo dañ leen di woo di leen laaj te laaj bi ñu laaj aussi tontu yiñ ci tontu ci suñu apply tala la ñu ko teg maanaam feneen fu ñu munti woo laajaat ñu même laaj yi li ñu tontu fii fu loolu la ñuy tontuwaat kon ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp vraiment te di joxe aussi ay daje ci yeneen i bés ak yeneen i xëy na bërëb te di ñaanal aussi chaîne bi vraiment mu nekk une chaîne internationale yéen ñëpp vraiment ngeen gis ci seen bopp ba ñeneen xëcc. voilà jërëjëf euh, mu doonoon nekkoon suñu suñu suñu gan di monsieur Ibrahima Ndiaye nekk juriste consultant de ngeen ko ci euh, poñ yi nga xamante ne dikkoon nañ ci ci biir waxtaan bi jëm ci wàllum actualité politico-judiciaire le cas Ousmane sunk ak yeneen i poñ yoo xamante ne également ñëwaat na ci biir waxtaan bi dañ koy remercier ci dalal bi ñu dalal mais également ci xam-xam bi nga xamante ne également euh, fësal na ko ci biir waxtaan bi di euh, leen jaajëfal mbokk internet yu Alpha TV jaajëfal également euh, sama ñaari cadre yi nga xamante ne ñoom ñoo àndaloon di Saliou ak également Daouda Cissé jox leen di daje incha allah ci yeneen jotaay jaa ngeen jëf